salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi ziare suñu sëriñ si fi nekk yëpp di rafetlu bu baax waxtaan wi nga xam ne fan yëpp ñu ngi koy waxtaanee fii mu jëm ci wàllu xasida yi ñu di ko rafetlu bu baax a baax di am mbégte lool ci yittewoo gi nga xam ne mbokk yi yittewoo nañ ko ko te mu doon lu am solo loo xam ne loolu lépp day wane rek ne ñëpp yéene ji benn la jubluwaay bi benn la. gis-gis lu mu wuute wuute it euh, xam nañ ne yéene ji ci ñepp am la genn ji la te moy ñongal mbirum sëriñ bi ak sam ko ba lu ci bokkon du ci genn du ci bokkutoon du ci dugg euh, naka non ñu nit ñi ngi doon top waxtaan fan yépp waaye dugguñu woon xëy na ngir rek bëgg a gën a ubbi ay afaq waxtaan gën ubbi ko ñu gën cee jëriñu ndax ñu ci doon bu baax baax euh, ginnaaw bi nga xamee ne nag jot nañ ci nusax yi man ak sëriñ Issa Gueye dañ ne woon euh, donte am nañ ci ay gis-gis sax waaye nañ jël nu sax yëpp ñetti nu sax yi euh, jim ko muqaabala jim ko muqaarana euh, te liñ ci jubloon mooy ñaari mbir rek jima taxaquq ci ndax xasida gi maanaam mas na jàpp ne ci sëñ bi la jóge wala déet ñaareel biit bu fekkee jóge nañ ci loolu bu fekkee jàpp nañ ne ci sëñ bi la jóge ñoom ñett bu ci njëkk ak bu ci topp kon ñaari jubluwaay yooyu rek lañ ci amoon falilaa euh, alhamdu nag biñ ko defee ba noppi li nga xam ne moom lañ ci gis ci tomb bu njëkk bi te ndax ci sëñ bi la jóge wala déet jàpp nañ ne xaside yi moom ñoom ñëpp ci sëriñ bi la jóge ñett yëpp ci ci sëriñ bi la jóge euh, li tax ñu jàpp ko it mbir yu bari la bokk na ci bi ci njëkk mooy ne euh, xaside yi ñoom ñaan ñëpp ni ñu jotee sindidi rek la jote te mooy ci mbindum sëriñ bi eh, ci ci ci mag ñi la jóge rek ñëw ci sëriñ bi ñëw ci suñu loxo boobu mooy bi ci njëkk kon ci wenn yoon wi wi di jaar rek la la wiñ wiñ jotee sindii rek ci lañ ko jote ñaareel bi mooy gisuñu gisuñu ci biir ñaari xaside yi lenn loo xam ne dana benn mu mushakkik wala lenn loo xam ne yadon ilal istigrab wala an nafi wala yooyu gisuñu ci daal loo xam ne jàpp nañ ne lii wute naa ko waxeenu sëñ bi wala sëñ bi xëy na du waxee ni gisuñu ko ci ñun biñ ko biñ ko xoolee teewul nag bo bu amee keneen ku ko ci gisit ñu ngi koy ñaan rek mu reex ko ñu xam ko ndax liy jubluwaay bi rek mooy ñëpp mën cee jëriñu euh, bokk na ci it ne xaside yi euh, gis nañ ci ay wax yoo xam ne daal niru na waxee sëñ bi bokk na ci yi nga xam ne euh, sëriñ bi dana koy dana koy faral di waxee te yooyu bokk na ci lu mel ne li muy li muy wax ci biir xas ci genn ci xas ci ñaari xas de yëpp sax di wax ne di woo yonent bi ne yonent bi sallam mooy wasilaam waaw ne yonent bi sallam mooy wasilaam lu mel ne li muy wax ne wasilatil yawma fi daareen ya samadi ilayka ahmadu zut taqdimi yallaahu ak feneen fu muy waxaat euh, waxwal wasilatu fi sirrin wa fi alanin ilayka lil yawma ya wahaabu yallaahu loolu lépp di wax yoo xam ne mënees na koo jàpp ne waxinu sëriñ bi la bokk ci eh, am na luñ ciy gis loo xam ne it ci bayit yooyu des na ci déggee lu mel ne mel ne day day jublu sëriñ bi da ci jublu étape boobu nga xam ne mooy bi nga xamee ne ba woon na aju ci kenn te jël mbiram yëpp eh, wékk ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waqtafa bihi wasilatan wa shaykhan eh, bokk na ci it ci li tax ñu gën a jàpp ne xasiday sëriñ bi la mooy xitma gi sëriñ bi doon def yonent bi sallallahu na ko ci tudd ko ay yoon lu mel ne xasid ak euh, mahbub gi euh, googu sëriñ baa ngi koy wax jaaltu taatahu fardi wa xidmatahu nafli wa zaadi ila luqiyaaka yallaahu euh, geneen xasida gi nga xam ne mooy yallaahu inni ilayka alyawma yallaahu it wax na ci ne jaaltu xidmatahu bi shi'ri nafilati ba'da al adaa'i lima awjabta yallaahu kon xidmaam googu mu doon liggéey leen tudd na ko ci ñaari xasida yooyu yëpp Euh, bokk na ci yim ci tuddit mm, loolu muy wax ne euh, dafa dafa jaayanteeg yonent bi wala dafa warlul boppam daal at mu jot euh, dana def ak xasida jëmale ko ci yonent bi bu gàmmu ñëwee te xam nga loolu am na feneen fu sëriñ bi waxoon sax fu jiitu fii foo xam ne waxoon na ko ne ne ne ne at mu jot dina ko def mu muy mallaktu mawlidan nabi min ashashi kitaabati wa xaadani min jamshashi gis nañ ci mahbub mu wax ne waxwal karimu allazi qad iltazamtu lahu fi kulli aamin hadaya chenri yàllaahu xasida yàllaahu ge it wax na ca lu mel noonu donte bokk ñu ko waxee ne xadil tazamtu xadil tazamtu lahu rida xadil xadil tazamtu lahu xubban ridaaka huna fi kulli aamin hadaya chenri yàllaahu kon euh, loolu it bokk na ci xaraayin yi gën a dëgëral ne xasida yi moom ci sëriñ bi la kon loolu daal mooy li nga xam ne moom lañ jàppoon ci ci ci xasida yi gan moo ci gan moo ci jiitu ci xasida yi euh, ndax ci sëriñ bi la jóge wala wala wala jóge ci moom liñ jàpp mooy ci sëriñ bi la jóge te ci yooyu bokk na ci yi tax ñu jàpp ko bu dee ñaareelu mbir bi te mooy xasida yi gan moo ci jiitu nag waaw bu dee yi nga xam ne nag euh, xasida yi seenu toftale jàpp nañ ne moom liñ jàpp moom mooy ne sindii la sëriñ bi njëkk a taalif mahbub lañ jàpp ne moo ci topp yallaahu gi nga xam ne moo tàmbale ci yallaahu inni ilayka yowma yallaahu abril wasilata bil muxtaar yallaahu googu lañ jàpp ne moom mujj moo leen mujj ñoom ñaar ñooñu euh, li tax ñu jàpp ko it euh, ay xëy na buñ ko waxee ñëpp danañ ko mën a dégg euh, waaye nag dana baax ñu wax ne seet liñ seetlu daal ñun mooy ne mel na ne Sindidi moom moom la sëriñ bi taalifaat bi muy def Mahbub ndax xasida yi niroo na lool ñoom ñaar te bëri na ci sax bayit yu ñëwoon ci Sindidi koo xam ne dafa daf ko dafa ñëwaat ci Mahbub lu mat fukki bayit ak juróom-benn ba juróom-ñaar yoo xam ne yëpp moom ni mu ñëwee woon ci Sindidi noonu la ñëwee ci ci ci ci Mahbub waaye buñ demee ba ca xasida gee di yàllaahu moom moom liñ jàpp mooy euh, sëñ bi geneen xasida la taalifaat rek donte niroo naag ñoom xëy na waaye ndax am na fa ñeenti bayit yoo xam ne ñëwoon na ci maxbub yu ñëwaat ci ci ci yàllaahu waaye loolu lool rek ay yeneen bayit la ak yeneen waxin sax nag waaw bu dee nag euh, ci ci ci li wane na nag euh, xasidak xasidak maxbub moo moo mujj sindidi bokk na ci gis nañ ci xasid ak maxbuub euh, sëriñ bi mm, bu di ci di ci tudd taalibe yi mu àndal di ñaanal boppam di leen ñaanalaaleel te loolu gisuñu ko mu di ko def ci sindiidi ñu jàpp ne kon bi mu koy taalif fekk na mu woote woote ba noppi lu mel ne wal tuksini wa sixaabi sawba aafiyatin wa hablana al fawza fi daarayni yallaahu loolu gis nañ ko sëñ bi di ko wax ci maxbuub te lu mel noonu gisuñu ko ci ci sindiidi mu ci ñaanal ay taalibeem ak Sindidi bu fekkee wér na eh, li xissa bi bi siiw mooy ne maamam soxna Asta Walo la ko taalifaloon eh, bokk na ci it eh, yiñ mën a jàpp ci ci ci ba léegi ci Mahbub mo mujj mooy bi gis nañ ne ci Sindidi bu muy ñaanal soxna bi muy ñaanal waajuram mu jigéen ci moom rek la ko yemale waaye bi mu ñëwee ba ci Mahbub da ko boole ci ñaari waajuram yépp da cee boole bu góor ak bu jigéen kon ñu jàpp loolu kon xëy na day mënees na ci déggee ne bi muy taalif Mahbub daa fekk Sëñ Mor Anta Sali jóge fi moo tax ba muy lam ñaanaloon waajur mu jigéen bi muy ñaanaat fii mu boole ci Sëñ Mor Anta Sali ndax gis nañ ci sindi lam fa waxoon mooy wa najjini wa jamia al muslimina maan wa najji walidati amina yallahu bi mu ñëw ba ci Mahbub li mu wax mooy wa najjini wa jamia al muslimina maan wa walidayya min an niraani yallahu kon loolu it mënees na cee déggee ne xëy na xasida gi bi mu koy taalif daa fekk Sëñ Mor Anta Sali wàcc na liggéey ba noppi radiyallahu anhu bokk na ci ba léegi it xidma googu mu doon xidma bi bokk na ci ba léegi ne loolu mu mu mu jaayante woon mu warlu woon ne at mu jot day def ay xasida ci gàmmu gi di ko jëmale ci yonent bi sallam gis nañ ci Mahbub mu di ko fi tudd te tudd ko ci Sindiidi te ku ne xam na ne loolu sëriñ bi waxoon na ne ci ama ashashin la ko tàmbali ndax am na feneen fu mu waxoon ne malaktu a nabi min ashashi kitaabati waxaadani min jamshashi xam ne ci la ko tàmbale woon teewut ba bi mu jaayante waat ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp gàmmu ñooy daan def ak xasit gis nañ ay mawlid am ak chachak yu dul yooyu yoo xam ne euh, saa bu gàmmu ñooy moom sëñ bi dana def ay xasida yoo xam ne ci mu dugg ci mawlidi mawlidi yaatam yooyu euh, kon euh, loolu yàgg na ko def te gis nañ bi mu ñëwee ba ci ba ci ba ci ba ci ba ci xasida gi mu mu wax ci wax wal karimu allazi xad iltazamtu lahu fi kulli aamin hadaya shi'ri yàllaahu waaw bokk na ci ba léegi xidmaam googu mu doon xidmaal yonent bi sallallahu alayhi mu mu mu mu mu wax ne euh, mu tudd ko ci biir xasid ak maxbub te tudd ko fenn ci sindiidi jaaltu xid jaaltu taatahu fardi wa xidmatahu nafli wa zaadi ila luqiyaaka yallaahu loolu ñëw na ci xasid ak maxbub waaw kon lu yooyu daal yenn la ci yi nga xam ne jàpp nañ ne mënees na cee ngir jàpp ne xasid ak gii di maxbub moom moo mujj sindiidi ba léegi it xasida gi ci toppit muy gi tàmbalee ci yàllaahu inni ilayka al yawma yàllaahu abril wasilata bil muxtaari yàllaahu moom it jàpp nañ ne moo leen mujj ñoom ñaar ñi maanaam moo mujj maxbub te bokk na ci li tax ñu jàpp ne moo ko mujj mooy gis nañ mu ciy tudd yonent bi sallam wasilaam ne yonent bi sallam mooy wasilaam wasilatil yawma fi daarayni yaa samadi ilayka ahmadu zu taqdimi yàllaahu ba léegi waxaat na feneen ci biir waxul wasilatu fi sirrin wa fi alanin ilayka lil yawma yaa wahaabu yàllaahu kon yooyu yëpp di di wane ah, yonent bi gi nga xam ne bana ñëpp ah, jàppee ko jàppee ko sëriñu boppam te gis nañ ne fee sax dafa doon dafa muy maxbub dafa doon tawassul ci ci sëriñ si bi mu tuddee asaabul mazahib ba noppi tudd na Cheikh Abdul Qadir Jilani tudd Saazili tudd Tijani tudd ad baax kon fii bi mu ñëwee daa ba ñëpp tudd yonent bi sallallahu ah, ba léegi bokk ci liñ ci mën a déggee mooy ne ne liñ tax ñu gën a jàpp ne bokk na ci ñu jàpp ne moom tax nañu mënees na cee déggee ne moom mujjut mooy ne euh, xasid ak sindiidi ak mahbub da ciy tawassul ci ñu bari da ci ñaan ci barkeb ñu bari waaye bi mu ñëwee ba ci yàllaahu gi moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam kese kese la ciy tudd tudd ci keneen ku dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom kese la ciy tudd tudd ci keneen bokk na ci it euh, lu mel ne loolu sëñ di wax ne moom la sëñ bi di jublu ci muy wax afa euh, yaa man lahu tubtu an afaali majnuni euh, euh, loolu noonu gis nañ ci xasida gi loo xam ne gis gis nañ ci xasida gi muy wa yoo xam ne daal day wane ne day junj yooyu daal ci yooyu la bokk yi nga xam ne bana ko xam naa loolu ku ku dellu ci ku dellu ci minan baax xarim dana ca fekk sëñ Basiru ci bi muy taxlil rumna shukur allazi bil kaafoon mu ni yaatal na ca lool gis nañ sëriñ bi di wax fii faghfir zunubi wa habli ismatan abadan min kulli ma lam yakun yurdika yallaahu ku ca dellu ci rumna shukur allazi sëñ Basiru moom ataraba fihi wa wassaa wa atnaba waaw wa ajaada wa ahsan yooyu mu wax ci ay xeeti bàkkaareeg yooyu yëpp rek ku ci dellu ci minan baax xarim dana ko ci fekk ba léegi it gis nañ ci ci ci ci am na am na yeneen bayit aslamtu nafsi ilayka alyawma zanada min mimma janaytu min al asami allahu ku ci bëgg lu ko gën a rek mën naa dellu ci minul baaxil xatim incha allah euh, ba léegi gis nañ lu mel ne loolu muy wax di wan suñ borom di di ko ñaan ne ko lépp lu mu bëgg balam cee jot balam ko laaj sax mu jot ci comme lu mel ne li muy wax ci jaalibatul maragh bi yaa mughniyan bi hakaza an haati gis nañ ci xasida gi di yàllaahu mu ciy wax waxinu mel noonu wa yassiran kulla zi saabin wa yassiran kulla saabin lii bila talabin ak yudul yooyu daal yoo xam ne yooyu yëpp buñ ko boolee daal ñun lim ñu jox ci suñu gëstu ba fii ñu toll nii mooy ne xasida ak sindiidi moo jiitu mahbub moo ci topp yàllaahu moo ci mujj euh, ñu ngi sant bu baax a baax nag mbokk yi nga xam ne ñoo ko dugal ci groupe bi euh, jëriñu nañ ci bu baax a baax ndax ñun ñi xasida yi ci lañ ko jotee wax dëgg yàlla amuñu ko woon man ak si ngay saagee mii nga xam ne ñoo ko bokkoon def Euh, fii lañ ko amee ci waxtaan wi tàmbalee ci lañ ko am ci lañ jot lii suñu soxna bu caw moo ñu ko yónnee xasida yi ñu koy sant bu baax a baax di sant mbokk yi di wax rek li ñuy tëjee nag mooy ne daal lii lépp liñ ciy déggee rek mooy jot na sëkk fi mu ne ñu jiima dox taxawal benn laj na xaw ma laj na leen xaw ma lu muy doon kuréel daal goo xam ne wala mbooloo moo xam ne danañ yittewoo mbindum sëriñ bi rawatina lu jëm ci xasida yi liggéeyal ci sëriñ bi ndax Euh, loolu dana dimbale nañu lool te it ñuy xaw di wattandiku di gaaw a génne dara di gaaw a génne ndax euh, xëy na euh, sama classe gii di nap na bi ñoom taxul ñu wax waaye awaam yi ñi nga xam ne ñooy gën a jàng xasida yi ñooñu lu lu leen lu lu yàq seen xel day yomb boo ko defee xam naa daal mbooloo buñ ko mënoon a moo xam ne danañ danañ taxaw ci di di di saytuwaar mbind mi di ko di ko gën a jubbanti di ko gën a joyanti dana dimbale lool taalibe yi te ab liggéey le buntu liggéey la boo xam ne yoon wi soxla na ko lool lool jàpp naa ne nag rawdu rayaaxin kenn waru ko cee jiitu dañ jàpp mooy rawdu moom kenn jiituwu leen ci kon ñoom war nañoo jiima jóg dox jéego yu njëkk yi jiima gisee kilifa gu mag gi ak fuñ ko mën a jaaree rek nuñ mën a fexee ba taxawal loo xam ne xasida yuy génne dana jaar ci seen loxo ak it mën a fexee ba am liggéey ci ay xeeti logiciel yoo xam ne tey foo mën a nekk ci àdduna bi xasida sangam goo bind da nga mën a xam gi ndax sëñ bi da ko bind aada waat ko ak fan la ko bindee ak lu ca bayit woo gis fenn nga mën a xam lii gan xasida la ak lu lool xam naa ak yurut yooyu daal yoo xam ne moom xasida yi laaj na lool xidma ñu ñu taxaw ci ñu ngi jégalu bu baax a baax nag di sant mbokk yi nga xam ne ñoo isaara xadiya euh, bi mu doon lu am solo ñu ngi tuub bu baax di jégalu di ñaan suñu borom defal ñu xewal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ Issa Gueye mi ngi leen di ziare bu baax a baax dafa xaw a socc sax ne moom waroon a dugal audio bi jërëjëf.